chers amis internautes bu Lune TV ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen bëggee di leen ziar bu baax baax di leen kontaane fu waaye mën a nekk fekk na ne ziar bu baax a baax euh, ba léegi ñoo ngi ànd ak yéen ñun ak euh, sunu gan euh, ci Lune TV tey nag ñu ñëwaat fii ci diwaanu tiwaan Peulh ñàgg ñàkk Rop ba léegi nii ñuy ànd ak leader yi nga xam ne tey jii ñoo jëm ci élection local yi. ñuy seet saar fii ci ñoo xam ne tey jii nii ni ma leen ko waxaan rek ñoom ay ay bees lañ ci làng gi waaye ñoo ngi def ay jéego yu am solo bu ko defee xam naa dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu te mbokk internet bu Lune TV ñu dugg ci waxtaan bi euh, ku baax ñoo ngi lay nuyu bu baax baax di la ziara bàyyi laak nga nuyu mbokk internet bu Lune TV présenté wu bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum salaam wa euh, maa ngi lay fay waaw di lu sa euh, teewaay fii tey donc man maa ngi tudd Kaare Cissé dëkk Niakourab nekk membre fondateur mouvement ànd defar suñu gox di nga xam ne Abdou Aziz Sall moo ko jiite nekk en même temps ça chargé des élections nekkaat en même temps le plénipotentiel bu candidat bu Abdou Aziz Sall donc euh, man suis venu tey di waxtaan ak askanu euh, communauté Tivaouane tubarkalla macha allah ci présentation bu am solo boobu euh, xamna buñ doon manam buñ doon laaj rek kan mooy Abdou Aziz Sall ak Abdou Sall tay luko tax mu dugg ci langue politique gi manam ñëpp xam nañ ne Abdou Aziz Sall euh, benn way loon bo xamne ku yer ay business la di doxal waye ñu gis ne tay ji ni dafa dugg ci langue politique lan mo tax mu dugg ci buñ doon wax tay ji ni lan mo tax mu dugg ci langue politique lañu wax waaw fofu den ci wax lu bari waaw parce que Abdou Aziz Sall ñun xam nañ ko bu baax donc mën nañoo jàppale ñoo ñoo mom ñoo mom ñoo bok fenn fu ñu yarandoo donc muy nit ko xamanteni ni commerce la do yëngoo jóge si commerce dugg si immobilier bi mu duggee immobilier di def social ni social gi muy def si commune Tivaouane ñag dem na ba ben benn instant ma nga xam euh amna lo xamanteni comme nim mu koy faral di ko waxee rek amna lo loo ken manam lu lu poste moko ko mën defar donc lu koy mën a defar mooy nga mën accéder ci euh mairie Tivaouane Peulh ñag pour nga askan wi seen i seen seen soxla yi nga xam ñepp ñoko bokk waaw yi maanaam euh, budget bi état bi joxe nga mën see doxal parce que tey ma joxe benn exemple bu ndaw lu mën ni wàllu courant lu mën ni wàllu wàllu ndox loolu Abdou Aziz posam mënu ko donc li nga mën mooy mu dem sa mairie ba mën kaa euh, fajal euh, soxla askan wi. Mm-hmm. tubarkalla ñu gis ne Abdou Aziz Sall bees la ci làng gi waaye mu nekk tey jii adversaire principal boo xam ne la ci ci koo xam ne ci mouvance présidentielle bi la bokk wala mu neex benn bokk yaakaar bokk mi maire sortant Papis Diop est-ce que jàpp nga ne tey jii loolu dana yomb ci moom ci ci ci élection bi bii mu jëm. waaw loolu nga wax doon dina yomb si moom bu baax a baax parce que jàpp na ne Abdou Aziz Sall moom moo nekk ni koo xamante ne daawul def politique mais estafam bi a commencé par man depuis 96 maa ngi def politique depuis 96 maa ngi def politique te Abdou Aziz da ngay wax ne mouvement bi parti yëpp a ngi si bokk man am naa parti bu ma bokk. tubaab foofu xam naa sax dinañ dinañ ci ñëw pour nga présenter mouvement bi ak yooyu noonu. voilà léegi léegi léegi mouvement boobu parti yëpp ñoo si bokk donc estaf bi am na fi ñoo xamante ne politique mom xam nañ ko bu baax te tay sax loolu nga yow sax moy mooy prouver ne tey la la la la potentiel bu maire sortant bi Abdou Aziz Sall la kon donc Abdou Aziz Sall tey jii même su fekkee daawul def politique ñu nekk si ginnaawam ñu ñu def politique ñu ngi si yàgg nañoo politique xam nañ euh, milieu bi te xam nañ politique ni ngi koy doxalee. tubarkàlla ba léegi nii foofu la des ndax comme tey jii kon ni nga ko waxee ne Abdoulaye Sall sax minul politique waaye ñun dañaa maanaam Sénégal dafa adoo maanaam euh, suñu politiciens dañaa gis ne pour liggéey daf leen jafe mais bu élection jegesee euh, ñoom li ñu mooy jël xaalis bi di ko joxaat askan bu ko defee pour ñu mën a jënd euh, seen i pour mën a ne nit ñi mën nañu ànd ak Abdoulaye Sall te bu bis baa bu leen gars yi turee xaalis bi bu mu wax si parce que Abdou du xaalis moo tax mu ànd ak ñoom te ñun am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax ne Abdou Aziz Sall képp koo xamante ne ànd na ak moom xaalis du la yóbbu bu la joxee dix mille lekkal bu la joxee cinquante mille lekkal mais du lu tax nga ànd ak Abdou Aziz Sall que cinquante millions yi ñu lay jox noonu c'est pour deux jours te cinquante millions yi mën laa fajal pour cinq ans te donc jafe-jafe askan wi c'est pour cinq ans kon donc nit ñi nañ conscient ànd ak seen xel xam ne commune bii ñu ñu fi dëkk ñoo ko mën a defar mais du cinquante mille yi nga xam ne moom la ñu jox doo sa poste moom ma koy defar parce que bu dee cinquante mille yooyu yaa war a def uti ji pour yóbbu ko sa cinquante mille deux la nga jox nga lekk kon donc ñun ñu ngi jàpp ne mouvement bii xam ne mooy mouvement euh, euh, mouvement ànd fa gox Abdou Aziz ka ñu ànd ak moom ñëpp du xaalis moo tax ànd ak moom te gis na ne carrément ne du xaalis moo tax ñu ànd ak moom conviction ak am gëm-gëm wóolu Abdou Aziz xam ne Abdou Aziz mii li ñuy xool si moom te mu nekk si moom bu ko yàlla dimbalee ba mu nekk sa mairie Tivaouane Peulh ñàgg li askan moo tax ñu ànd ak moom. tey mais mais mais tey ki jàppale ne Abdou Aziz Sall buux ngeen moo xam président moo moo xam euh, comme maire ñuy pousse leen ñu demee ba accès ci pouvoir jàppale a xëy rek woor nekk ci euh, dugg ci mouvement bi li ngeen doon def ci mu ngeen rëcc ko waaw loolu loolu dinaa si wax dara parce que wax naa ne Abdou Aziz ñoo yoroondoo mais bari na am ñoo xam ne sax mën nañu bañ a nekk fii di doom ñoom te buñ jotee dootuñ sax ne yow nag yow wax dama ne Abdou Aziz ñoo yorondoo xam nga nit ki nga yorondoo di nga xam jikkoom te tey Abdou Aziz mouvement bi dafa yow dafa leeralaat boppam mouvement euh, ànd defar suñu gox donc ànd defar suñu gox mooy ñëw ñu ànd ñu liggéeyandoo kon donc tey ji Abdou Aziz même bu demee ba sa mairie ba lépp lu muy def da da ngay ak conseil municipal parce que ñu bari nañ jàpp un maire c'est un conseil municipal un maire nekul moy patron moy patron maire bi lu ko neex mu def il y a un conseil les conseils sont soixante conseils donc conseiller ñu ñoy taxaw définir politique commune bi ñu xam lan la maire bi ak bureau bi ak ses adjoints ñu exécuter lo lo la war a kon donc ñun jàpp na ne Abdou Aziz mii tay bu démé ba nek ce maire bi mais mais mais maire yi mën leen mën leen fa la pare ñu def dictature maanaam ku ànd ak ñoom ñu defal la privilège ku ànd ak ñoom bu ko defee dañ lay xeex wala ñun la bu yàlla dimbalee ba Abdou Aziz nekk maire yeneen parti yi nga xam ne am fa ay conseil Abdou Aziz ñu ñu nekk conseil Abdou Aziz ñu nekk conseil opposant yi ñu lay yemale parce que dañ ne conseil municipal mais loolu est-ce que newut ne waxi ku bëgg rek ngay ngay maanaam wala waxi politique waaw xam nga xam nga tey ji Abdou Aziz li ko li ko doon si politique yooyu yëpp si la bokk parce que yooyu yëpp ay injustice la gis nañ fi ay maire sortant yoo xamante ñi ànd ñoom la ñuy waxal ñi ñoom dul waxal ak ñoom conseil te conseil yi nag conseils yëpp ngay yemale parce que c' ay conseils municipaux la kon conseil municipaux bi ki nekk dëkk Niakhar mën na dem ba ba ba di intervenir foofu parce que conseil municipal da la fal légalement. tubarkalla macha allah ba léegi nii xam naa ñoo ngi ànd ak Kara Cissé bokk ci mouvement rénovation de Euh, moom lañ seq a waxtaan bu ko defee rek xam naa euh, buñ génnee foofu lay laaj tey jii nii maanaam ci maanaam gis nañ ne Tivaouane Peulh ñàkk ñàkkorob comme ni ngeen ko waxee bokkaloon sax ci ci kii mi waaye gis nañu euh, Papis Diop ñu si bari tey jii ñu ngi wax ne liggéeyut liggéey googu noonu ba tax tey jii nii war nañ ko fa mën a faraat est-ce que jàppoo ne loolu di ay waxi politique ndax wala ay waxi adversaire tey jii nii ba wala da ngaa wala da ngay dëggal ne tey jii liggéeyut loo xam ne war naa faraat waaw man de si bilan maire sortant bi man waaw mais maire sortant bi xam ne moo fi nekkoon bilan dama jël ci ñaari ci ñaari domaine lay jël lu jël jëm si wàllu santé lu jëm si wàllu éducation maanaam def fi lo xamantene lo xamantene man loo nañ ko def xoolal mën nañ se xol tek suñu loxo parce que ñun ñi ci fi leen dëkk fi leen juddoo fi leen yoroo fi leen yéwo donc lu wàllu santé bu fi defee dinañ xam wàllu wàllu éducation dinañ xam su fekkee moom def na nan wan parce que ñun durant pré campagne bi wër nañ euh, commune Tivaouane ñàgg bi yëpp dem nañ si ay école yoo xamante ne bidon 20 litres la ni la élèves yi di jël di yóbbaale pour toog si. pour toog am na ya ya am na. ndax man tout récemment am na. dama lay dama lay ba lay préciser sax dëkk bi mu am boo demee fu mel ni Sokaabeek école ba xale yi bu ñuy jàng dañuy yóbbu bidon 20 litres la ñuy yóbbaale boo ñëwee si wàllu éducation fii euh, muy Tivaouane Peulh muy ñàgg muy euh, fële xoolal muy xool muy bënnoo ba. classe yi amul ay table banc boo demee ñàgg deux ñàgg deux table banc amul fa dafa manqué table banc boo demee boo boo boo boo ñëwee ñàgg wolof si si si classe yi y' presque plus de cent vingt élèves par classe kon donc ñoom il faut ñu am jàng lundi ñu jàng mardi. maanaam duwul fili wala duwul fili. waaw donc loolu euh, fan la kii bi nekkoon euh, fan la maire bi nekkoon te éducation bokk si les neuf euh, domaines de compétence yoo xam ne da nga transféré éducation yow mënoo fee nekk. pendant 7 ans ben yon nga joxe fourniture scolaire ana yenen 6 ans yi Dir sept ans yi benn yoon def Ta te tout récemment la nga joxe tout récemment ñu dañuy suivre tout récemment la nga joxe. maanaam ba local yi ñu local jege see. local jege kon donc loolu lay nit ñi nga nga nekk fi pendant 7 ans fonds de dotation yi xamne mom ne la poste de santé yi di di di xool xam si état la jóge jaar si maire yi jo joxoo leen que c'est grave facture courant facture ndox yu poste santé yu école yi. mais maire yi moo ko war a fay maire lu nga ko fay boo ñëwee si boo ñëwee si poste yi ASC yi mais comme ñoo war a jël en charge ak les gardiens ak les xool les xool les techniciens de surface maire moo ko war yi si bu kon donc ñaari domaines yooyu laay foofu laay yem ñaari domaines yooyu su ma su ma su xool si ñaari domaines yooyu bilan damay def damay def bilan négatif. maanaam kon yow jàpp nga ne def bilan boo xam ne war ko mën a falaat. maanaam population bi ñuy xool ñuy gis. su fekkee si ñaar domaine yooyu la xool kon normalement xool parmi les onze candidats war a jël sax euh, neuvième dixième la war a jël dixième la war a jël maanaam avant daare la war a jël tubarkàlla macha allah wax dëgg yàlla euh, loolu moom moom moom kii man la comme ni nga waxee maanaam am am école yoo xam ne te ñu nekk ci vingt-et-unième siècle di xale yi di dem di yóndu yóbbu ay bidon ngir ngir jàng ndax tout récemment ku mujjoon dalal sax wax nañu ko te kooku secteur éducation la nekk nee na euh, euh, am na dañuy luy sax ay magasin par élèves ñooy jël xaaj luy ay magasin ngir di mën a yóbbu élèves yi di leen wàññi pour ñu jàngale te tey looy looy looy looy ndax gis kook noonu ndax ñoo ngi toog ñaxta bu jegesee ñoom ñooy ginnaaw seen carte faral kook noonu tey boo amoon lay conseil tey ji nga xam ne tey euh, jàpp nga ne ay suñu yaay lañ wala ñoo xam ne suñu papa lañ ndax ñu bari tey yi dañ leen xiifal ba ba élection yi jege ñu wut xaalis jox la ñu fàtt na sax ñoom dañ doon dund souffrance xam ne tey ji mooy boo am loolu conseil lan la waaw man li may conseillé euh, sama yaay sama papa xam nga li ma leen li mooy ñu xalaat sóoraale

boo amee daay nga dem këram fëgg ko mu mën laa intervenir moo gën nga fal maire boo xamante ne xamoo fu mu dëkk dans le Sénégal xamoo hmm. kon su ma la déggee dafa mel ni maire importé dañ leen importé le maire sortant c'est un maire importé fekkee am na kër fii si euh, dans la commune de Tivaouane ñàkk nan ko wax amul yoo xam benn local amul benn kër am fii luye nag boo neexee mën ngaa luye mais amul fi kër kër moom kër goo xam ne te fii nekk ñun suñu a am na fi fii am na fi kër fii am na fi kër fii am moom parmi les onze candidats moom c'est c'est c'est c'est lui seul moo xam mo moo fi dëkkul si commune bi mais tous les autres candidats ku nek bu ma ngaa daan fii mooy këram kon donc limay may lancer un appel moy sama parents yi sama sama yaay sama papa yi nan conscient xam élection yi ñu c'est pour pour sept c' pour 5 ans képp ku fi fiy fal na fi fal koo xamante ne ku ku xam la ku fi kessano ku fi juddoo xam réalité yi xam ay doomam ñooy bokk si ak ak ak population bi andi jang parce que su fekkee da nga am maire boo xamante ne. ay ay doomam du fi jàngee c'est grave da am mère boo xamante ne ay doomam day ànd ak doomi nit ñi di ànd ñoom di jàngi di dugg si posan day di faju di dem si euh, place publique di fo loolu loolu moo baax mais far mère boo xamante ne xamoo jabaram xamoo doomam xamoo ñinam c'est grave kon donc li may lancer mooy mu nan nan loolu xam ne c'est pour cinq ans allah ci leer yooyu ndax boobu ba léegi yaa négatif nga ne tey ni maire bi mu ngi def maire bi ni euh, Abdou Aziz Sall mi nga ne tey mooy seen yow mooy seen candidat est ce que na programme boo xam ne bu fi toogoon bu ko doxalee gëm ngeen ne war naa am sax deuxième mandat voilà très bien xam nga tey jii ku Abdou Aziz bi muy dugg am staff bu baax. am na comité de communication gis gis ngeen ne est-ce que jàpp euh, programme am jàpp nga fu nekk tey jii nii la mu fa a def léegi gis ngeen ne tey bu ko defee tey jii nii carrément ñëpp xam nga dafa am neuf domaine de compétence yoo xam ne ko euh, euh, maire yi. donc neuf domaine de am na si loo xamante ne incha allah. le vingt trois janvier mille vingt deux. waa Basi dinañ koy amati. kon donc yi ñëpp nekk ay case santé dina def ay poste santé loolu moom c'est fini dina am poste santé beneen bi bu ñëwee si wàllu école yi fii école yi nga xam ne amoon ay table banc moom day am table banc bu bu xool xool boo xool boobay ñaar lu fu lu ma ne commune bi Tivaouane ñàkk dafa war am lycée mais amul lycée hmm. kon xale yi fi ñuy jàngee ah amul lycée xale yi ñu ngi jàngi Kër Massar ou Jaxaay hmm. foofu lay jànge kon donc ñoo loolu dañ ko war a implanté xool implanté fii mu am fi lycée hmm.

fonds de dotation yi moom incha allah bu Abdou Aziz nekkee maire chaque année fonds de dotation yi pourcentage dinañ ko jot boobay benn mm. seen seen personnel yi muy muy muy gardien les femmes xool ma déglu xool surface mm. ak li mën a jël si ASC yi parce que lu ma wax ne a yëpp lu mën a si ASC yi waaw mooy nga xam ne ASC yi surface waaw ñooñu non pas les ASC yi xam euh, ah, ne dafa am ay euh, kii ay euh, agent de santé communautaire. ñoo nekk si biir poste yi ñoo ja ñoo jàppale infirmier ak sa famille ñooñu poste yi ñoo leen fay. Hmm. te léegi ñooñu nag euh, bu Abdou Aziz nekkee maire incha allah dinañ si jël poste bu nekk ñu jël si ñoo xamante ne maire yi ñoo leen fay. Hmm. su ko defee loolu mu xaw a wàññeeku. Hmm. boo jëlee si wàllu sécurité sécurité fii boo mooy da ngay dem romb mbedd yi mbedd yu bëri amul ay lampe. donc xool électrification bi dañ koy defar ba mu fi maanaam mbedd yëpp leer nañ te loolu yomb na am xam-xam bi xam nañ fi ni jaar pour defar ko mm-hmm. donc ma jàpp naa ne incha allah bu Abdou Aziz euh, yàlla ba mu nekk si bi am nañ programme yoo xamante ne ay partenaires yoo xam taxaw nañ sax dugg ndax ñu si maire yi bari dañaa taxaw ci ci ci wala ci juuti yooyu rek pour mën ndax ñëpp xam ne patente ak juuti mënta defal gox wala mënta defal commune est-ce que euh, yéen am ngeen ay partenariat wala jàpp ngeen ne bu ngeen si toogee war ngeen mën a ay partenariat wala ay yu leen ba ngeen comme yu ngeen ko ay ay centre commerce wala ay ay poste de police wala genre yu mel noonu tey ji ba euh, gox bi gis si boppam waaw loolu laa xam nga tey te taxi it ndax gis nañ ne euh, fu mel Rose fa fi la te ay source ay ressources xam ndax zone touristique la yooyu yëpp mën naa génn nag comme boo xam ne day dellu sa Thiès. waaw loolu loolu laa wax xam nga tax xam nga tey ji dans une commune du benn du xool du benn commission rek mu xool moo fay dox fii fii la la la la commune de Tivaouane Niague il y avait 15 commissions parmi les 15 commissions benn commission moo doon dox muy commission Doma Niague muy suuf suuf xool xool yoruloo commune dafa war a am commune yëpp xool maanaam xool euh, commission yëpp ay dox b commission yëpp a doxee parce que la grosse ngay tudd.

ñëw na na ko jàppale mu ñëw yor mairie Tivaouane ba nga xam ne bu ëllëgee mm. commune dina xam ne commune bi mm. tegu na say loxoom mm. ka ka nga xam ne moom la war a tegu mm-hmm. Mm-hmm. kon daal su ma la déggee day mel ne si heure bu baax bi la ñëw daal voilà damay wax ne tey jii Abdou Aziz moom moo ñëw si heure bu baax bi parce que tey ji sul woon Abdou Aziz ah commune bi dina gën a sooxewaat parce que actuellement nii damay lancé yëpp parmi les onze candidats présentement nii sunu candidat kese lañ topp di xool. waaw topp di xool. Mm. tout récemment xam naa dinañ ci ñëw ndax am na benn coïncidence fi amoon euh, la fois passée ci benn conférence diine ñoom ñaar ñu dajoon fa waaye amoon na est euh, mm. moom jàppante mm. foofu ñun xeexunoo noonu. rek ndax dafa naa euh, maanaam tey dafa nekk koo xam ne tey mooy mooy mooy sax moom mooy euh, déedéet mooy opposant sax mën nañu wax ne mooy opposant boo xam ne tey ji moo opposé opposé boo xam ne tey ji euh, fu mu dem rek bu fa demee ñoom ñaar dinañ maanaam dara am ay wax yu fa jóg yu mel noonu tey man man foofu laay waxee xam nga euh, événement boobu amoon temps yee passé hmm. ñàkkorob la amee ñu ñàkkorob lañ juddoo leen fi leen dëkk fi leen yaroo ak ah, événement boobu amoon man mi maay secrétaire général bi hmm. donc te ñun fii lañ juddoo te événement bi pare na ko kenn kenn pare na ko kenn hmm. doona jox invitation tous les candidats waaye léegi bu ñu joxee tous les candidats candidat yi day ñëw hmm. ñu suñu candidat ñëw na suñu candidat bi mu ñëw nag ñàkk roog gii la candidat bi dëkk hmm. fii la dëkk am na fi kër fi la juddoo fi la yoroo papa am na nekkoon la pendant 40 ans mu dem ñàkk def def fa 22 ans kon donc koy candidat bi nga xam ne fii la fii la dëkk ñu ñu invité ko si ay si ay jàng hmm. bi muy dem mu yóbbaale plus de cinq oto te fan nga doon defee dafa xat oto yi bu ñëwee bu bu xool mën noo am fa fa noonu du tamit ndax bu waa dafee wala dafa bëgg a wane boppam rek ne instant bi mbooloo mi topp nañ ko macha allah waaw c'est voilà c'est euh, très yaa wax loolu sax saari loolu du conférence hmm. ngoon sëñ Babacar la ok man sëñ la te ngoon sëñ Babacar day dem ba minuit hmm. te ñun dañoo invité te ñun dañoo euh, Abdou Aziz mi invité mais gële da hmm. te bu àndee ñàkk trop te mouvement bi fi la nga créé donc xanaa abdouaziz xanaa buy dem kay dina ànd euh, ñi bokk si mouvement bi ñi dama moo laa moo tax vingt cinq oto yooyu am na ñu si am na xam ne yëguñu si vingt cinq oto yi doon dox hmm. te bu ñu bi ñu ñëwee ah ñu ne bi ñu ba mu toog hmm. ak ñaan yi mu àndal gis la toog hmm. coow beneen candidat bi ñëw beneen candidat bi ñëwee ah ñun de ba ni jànga yi di tasee candidat bi moom dugul si si si si biir baas ba dugul si biir baas ba toogul si turbine bi waaw te nag li may on a la sànq ne man maay secrétaire général euh, euh, euh, ñi organisé woon événement boobu noonu. donc man limay wax moy jàng ça fait plus de 7 ans ñu koy def plus de 7 ans ñu koy ñu koy def mosul am coow donc coow li fu mu fu mu jógee mooy amul parrainage. Mm. jangay nga war a parrainer kenn. Mm. su nga parrainé woon kenn je pense coow du am. Mm. mais parrainé wax kenn nga inviter tous les candidats. tous les 11 candidats. exemple. tey jii su ma dëggoon làmb ma invité cinq leaders yoo xam ne bokkuñu bu ñëwee si làmb ji peut être làmb ji bu dee cinq leaders du am mais i supporter ñu yàq la ñu hmm. loolu may wax li may lancé foofu mooy ñu organiser ak ak ma ko ma boole sama bopp boo liggéey nañ defaat seen nga doon def hmm. jël jàng pare na kenn hmm. mais pas invité tous les tous les onze candidats ba pare beneen bis des c'était pas le moment ñu organiser jàngee yi parce que ñu nekk si pré campagne tension yi bari na donc war na organiser. foofu sax laay ñëw ndax euh, keroog euh, Abdou Aziz Sall def na euh, conférence de presse même même maire sortant def na conférence de presse waaye Abdou Sall dégg nañu ci waxam moom nee na wax dëgg yàlla wootu ci violence te moo ngi woo ndax moo ngi woo candidat yëpp ci ci no violence ñoo bokk nday ñoo bokk bay ñoo bokk ñu ñi xéxal té bu dee gox bi lañu xéxal jarul jarul violence ndax ku né pour pour pour xéxal gox bi ndax ñëpp fi lañu yéwo fi lañu comme ni nga waxé ma japp na fi lañu yéwo bokk jarul violence quand même bo amoon nday loy lancer eh, mo xam nga xam yéna bokk and ak Abdoulaye Sall ak ñi ñi bokk ak ñi nekk fenen loolu lancé ci ci ngir no violence wa man fofu li ma fay wax c'est très simple ñaanal Abdoulaye Sall ak ñaanal ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo bokk fi la fi da nga gis boo xamantene moo moo moo ngi ni day bokk ndey ak bàyyi. kon donc nañ jàpp hmm. su fekkee ñun ku nekk li ngay woote moo nekk si yow bi maanaam ñàkk rob ñun ñu dëkk ñàkk rob ñàkk rob moo ñor hmm. kon hmm. man nan ma bàyyi ma ànd ak Abdou Aziz Sall ma bàyyi keneen ànd ak keneen yaa ngi dégg coow bañ a am ku nekk nag am nga droit far fu la neex parce que Abdou ay Sall dafa bàyyi ñu bëri ñëw ne daway nekk candidat jël ay moyens def jël ay ay ay coonoom lépp def kon donc kooku daa jël ne moom fii lay fi xool yoon wi la jëm na nga bàyyi ak yoon woowu hmm. keneen ko am beneen yoon nga soo hmm. fee jàmm na ñooy parce que tey jii li kay li li loola dox ne guddi guddi ñun fii la ñuy fanaan kon donc jaru ñuy coow hmm. jaru wax wax ju ñaaw parce que boo wax ñaaw ji le 24 ñooy nekkaat le 24 janvier ñooy nekkaat lay nekk kon donc li may lancé mooy campagne baa ngi ñëw ku nekk na cam na campagnal sa leader mm. noo defoon gañe nga campagnal ka mm. te bul xaste bul wax wax ju ñaaw parce que fii dëkk bi fi fi nekk nii mm. loo fi wax nit 9h ci suba balaa 17h xool mu xam ta parce que ñii pap bokk ñëpp bokk ku ma bokk la gis sa yaay bokk nga bokk xool sa wàllu pap kon donc wax ju ñaaw jaru ko fii li fi moom am mooy nan jàpp ku nekk nga jàpp ka nga àndal moo gën nga jéem a def nooy campagne ba mu gañe jàpp na mooy suñu candidat te mooy candidat bi nga xam ne moom moo gën si commune Tivaouane Peulh Niaga waaw te incha allah le 23 janvier dinañ xam ne Abdou Aziz moom mooy le candidat euh, de l'émergence ok macha allah xam naa la ñuy cëraloon ci waxtu daanaka euh, xëj na jëm ci jeex boo amoon looy tàggatoo ak koy gërëm ak sant nga def ko bu ko defee ñu tàggatoo beneen incha allah waaw donc man maa ngi leen di nuyu yéen mm-hmm. waa Lune TV di leen sant di wax ne li ngeen def lu baax la parce que ñun suñuy kàddu yéen a koy génne mooy muy muy tasaaroo mhm. vraiment di leen sant yoo xam ne jaaroon ngeen fi jaaraat fi tey ngay ñëw si man mhm. donc vraiment di di di rafet lu lii beneen bi di beral nuyoo euh, notre candidat mhm. muy Abdou Aziz Sall di ko maaso coono di ko wax ne mun a muñ parce que lu nekk mu ngi koy dégg mais Abdou Aziz moom xam na loolu lu nekk mu ngi koy dégg mais na muñ parce que loolu lu koy dindi mooy le 23 di mu xol mu dañ le 23 ñi ko doon saaga dinañ ñëw si moom inshallah for force dina ñëw si moom moom su ma jógee foofu di nuyu l' ensemble des membres du mouvement en defar suñu gox hmm. su ma limee damay juum hmm. mais l' ensemble bi yëpp ñoo toogoon créé ndoo comme ni ko Abdou Aziz waxee ñoo toogoon créé que o oh, Abdou Aziz nag kaay yaa di jiite parce que Abdou da wax hmm. yaa moom créé wul danga danga créé ñëw ñëw nag kaay jiite ñu ñoo créé nag kaay jiite kon donc l' ensemble bi yëpp maa leen di nuyu di leen sant di leen wax ne ñi ngi jëm ci ay élection jar la xaste jar la ñiiroo jar la jaru xeex ku nekk na jël carte d'identité ak carte électeuram téye ko bu baax le 23 janvier incha allah 8 heures bu gars yi ubbee ñu rang voté dem ñibi 18 mm. heures ñu xaar dégg Abdou Aziz gagné na mm. donc man loolaa leen lancé mm. di wax ne violence baaxul violence baaxul maanaam Abdou da ngay wax violence fajul dara donc liy faj dara mooy yar ak teggin mooy faj parce que boo boo amul yar doo am doo am vision hmm. kon donc li may ñaan ñëpp mooy ñu jàpp campagne bi dem si campagne jàmm jëral si jàmm dem si élection jàmm jëral si ak ak jàmm yàlla may nu ndam ba nga xam ne le 23 janvier 2022 20 heures ñu ne Abdou Aziz gagné na mairie Tivaouane Peulh Niaga tubaarkala tubaarkala macha allah mbokki internet bu Lune TV tey fii lañ ñëwoon ci diwaanu ñàgg ñàkkar Tivaouane Peulh doon fi dalal koo xam ne car euh, Kara Cissé lañ koy wax bokku ci mouvement rénovation de Ngoye andak euh, leader Abdou Aziz Sall ngir xëccoo maire yi ñàkk ñàkk rob yow ñak ñag ñak rop tan Peulh diko ko bu baax ba xamna na amu temps sax waaye jox nañu ci temps gatt gàtt gàtt mu jox ñu ci tam wax dëgg yàlla ñoon seq moom waxtaan bu ko defé ñong koy jaajëfal bu baax a baax bu ko defé non lañuy ñuy nga xamne ne moy Tons Assane ñaan nga xamne mo moo jàppoon ci émission boobu jàppani ndax say suné moy japp ci liggéey ba lepp di jàppani ñoo ngi gërëm bu baax a baax comme ni nga ko waxee wax dëgg yàlla monsieur Abdou Aziz Sall Euh, moom suñu féete la wax dëgg yàlla te ragal féete day xañ wërsëg ñu ñoo ngi koy jaajëfal baax baax lii mu bëgg di ci wut yàlla yàlla defal ko ci jàmm moom jot ci insha allah rabbi bu ko defee xam naa mbokk éner bu Lune TV bi dinañ jox dig daje beneen yoon ak beneen gan insha allah rabbi jërë ngeen jëf